ngeen ngeen di abonné fii si mën a jot moo leen vidéo su ngeen bëggee liggéey bu set bu mucc ayib ànd ak qualité ci wàllu production ak distribution établissement mbay et frères moo ci mën établissement Mbaye et frères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 loolu xadis la bu wér wax na si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wax loolu rek wane na kon euh, ji jullit bi euh, war na ittawoo ji jéem a jikkawoo jikko ju rafet bokk na ci li tax war a nit ki di jullit bi di war a ittawoo ba tey am jikko ju rafet mooy suñu borom araamal ci moom sawara boroom jikko ju rafet suñ boroom day araamal ci moom sawara yonent bi moo wax ne faqat xarama faqat faqat xorima naar ala kulli hayinin layin sahl képp koo xam ne day doon nit ku oyof ku nooy ku yomb nit ku mel noonu suñ borom dafa araamal ci moom sawara te yooyu wax yëpp ay jikko yu tat la yoo xam ne euh, jikko féetu ko kaw képp ku képp ku melawoo noonu suñu borom day araamal ci moom sawara kon loolu yëpp kon ay mbir la yoo xam ne bu ci nekk rek war naa mën a puus nit ki ci muy itewoo uh, jikko ju am jikko jikko jikko ju rafet noonu tamit la jikko ju rafet yi bari ngëneel bari na ngëneel loo ndax gëm yàlla gi gëm yàlla daraja ji moo gëm jikko ju rafet mooy mooy mooy darajaam ji gën a kawe maanaam bu ñu doon bu ñu doon wax mbaxanam gëm yàlla daal mooy jikko ju rafet moo féete kaw yonent bi moo ko wax akmalu akmalul muminina imaanan ahsanuhum xuluqa way gëm yàlla yi xam ne ndax képp koo xam ne euh, ponk gëm yàlla yëpp gëm nga leen gëm leen di ko wax sa làmmiñ nangu ko soxol bokk nga ci muminun yi waaye nag day gën a matanti ndax gëm yàlla day dolliku suñ doolee jëf yi loolu yonent bi wax saa bu ñu doolee jëf rek gëm yàlla gën a dolliku yonent bi nag moo wax ne gëm yàlla googu di dolliku dolliku dolliku luy dolliku nag daa war a mat li ku kulli shay'in islama tamma nuqsan daa war a mat waaye nag fa muy àgg ci mat nag mooy lan mooy jikko ju rafet kon gëm yàlla dëgg-dëgg balaa mat di yokk di yokk di yokk ba àgg ci mat mooy nit ki day rafet jikko man na yokk jamono ju nekk nag waaye ak ci mat tànk nit ki rafetalul jikko akmalul muminina imanan ahsanuhum xuluqa akmalul muminina imanan ahsanuhum xuluqa loolu euh, war na baax tamit ngëneel loo xam ne jikko ju rafet am na ko bokk na ci ay ngëneel li ñu waxoon xadis bi ñu waxoon léegi yonent bi wax ne euh, kim gën a bëgg ci nit ñi tey boo léegi moo koy gën a jege ci nit ñi yowal xiyaam mooy boroom jikko ju rafet inna min ahabikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawmal xiyaama ahasinukum axlaqa waaye tamit bokk na ci eh, ngëneel la am makaarimul axlaaq jikko ju rafet bokk na ci day def jullit bi mu bokk ci tànneef yi tànneef yi ñi ñi gën nga xam ne bu ñu dee seet ñi gën ci jullit ñi moom da cay bokk bokk ci tànneef fi jullit ñi jikko ju rafet day tax nit ki bokk ci tànnee fi jullit ñi yonti moo wax loolu jullit ñépp moo ne inna min xiyaarikum inna min xiyaarikum ahsanukum axlaaqan waaw maanaam ñi gën ci yéen ñi gën ci yéen mooy ñi nga xam ne ñoo gën a rafet jikko moo tax may ka ma innamal umumul axlaaqu ma baqiyat wa in humu zahabat axlaaquhum zahabu xeet bu nekk euh, bu ndee xeet wa daal mooy jikko waaw fekk jikko jikko yaa ngi fa rek xeet waa nga fa ma ngay dund ma ngay màgg waaye saa bu jikko yi demee nag xeet wa raaf na dem na euh, jeex na kon euh, loolu lépp solo waaye bokk na ci ay ngëneelam jikko ju rafet daa bokk ci jàmm yàlla yi gën a màgg kon li ñu waxoon léegi rek nekkul lu ñu ki melawoo nii rek waaye dafa doon ak jàmm yàlla waaye sax daa bokk ci yàlla yi gën a màgg bokk ci euh, may yi suñu borom di gën a màgg yonent bi moo wax ne waxoon na ko léegi ma min shay'in athqal fi mizaanil mu'min yawmal qiyaama min xuluqin xasan fa inna allaha la yubxidul faaxisal badi euh, amut dara lu ñuy teg ci balance bu nit ki yowmal xiyaam mu di ko diisal lu mel ne jikko ju rafet ni muy diisalee balance waaye nag suñu borom yi la bañee kuy wax wax ju ñaaw ci làmmiñam wala di jëf lu ñaaw walla di saaga walla di ŋàññaate loolu noonu la ko suñu borom bañee fa inna allaha la yubxidu alfaxisha albadi suñu borom dafa bañ waaw kabor maqatan inda allah te bañum suñu borom nag lu rëy la kabor maqatan inda allah kon suñu boroom bañ na bañ na lool kan kuy wax wax ju ñaaw ak kuy saaga ci kuy saaga wax ju bon basi mooy kuy wax ju lu ñaaw mu wulaate wala di wuññi ayib bi nit wala di waxi awra loolu mooy suñ euh, suñ borom bañ la bokk na ci ba tey ay ngëneelam jikko ju rafet mbokk yi day tax nit ki di jikko ju rafet daa bokk ci li gën ci àdduna lépp addunaa li ne ci biiram lépp ju ko jëre mooy li ci gën ah, al xuluqul xasan xayrun min ad-dunya wa ma fiha boo boolee adduna ak li ci nekk lépp jikko ju rafet mooy leen gën loolu euh, yonent bi moo ko waxoon Abdullah ibnu Omar Abdullah ibnu Omar radiyallahu anhu moo ne ko Abdullah am na ñeenti mbir yoo xam ne bu nekkee ci yow loo ñàkkati loo ñàkkati ci àdduna bu la naqari am na ñeenti mbir yoo xam ne bu nekkee ci yow loo naq loo ñàkkar ci àdduna bu la naqari arbaun iza kunna fiika fa ma ma faataka min ad-dunya xifdu amaana wa sidqu xadiis wa xusnu xaliqa wa iffatun fi tooma mooy bi njëkk mooy sàmm kóllëre su la yàlla defee ngay ku sàmm kóllëre doo wor loolu bu newee ci yow loo ñàkkat ci àdduna mu naqari képp ku yàlla xéewal a nga ngay sàmm kóllëre loolu amul lu ko féete kaw ci àdduna amul suñu borom di mayee ci àdduna lu kawe loolu loolu yonti bi ko wax benn la ci ñaareel ba sidduq xadis maanaam looy wax mu na ko dëgg di wax dëgg bañ a fen ñett nga xam ne lépp looy wax dëgg lay doon loolu ba tey ku suñu boroom xéewale loo ñàggat ci àdduna war laa naqari la ci toppaat mooy jikko ju rafet jikko ju rafet nga xam ne ku la gis xemam la bëgg a jëflante yow ah bëgg laa jege loolu ko suñu borom defal tamit loo ñàkkat ci àdduna war laa naqari ba ca mujj nag mooy ah, am jombulu ci aw ñam maanaam li ñu tuddee am di ah, am jombalu aw ñam daal ku la ci fiir du la jàpp aw ñam ku la ci fiir du la jàpp fekkee loolu rek ku am suñu borom bi defal loolu nga am jom loolu ñeent yooyu mooy ñeent yi nga xam ne muy sàmm kóllëre dëggu ci ay wax waaye tamit rafet jikko waaye tamit jombulu uh, ci aw ñam bokk na ci li li xamle ba tey jikko ju rafet mooy ne mooy mooy ndénkaanal yonent bi daa bokk ci li nu bi dénkoon ndénkaaneem la boo xam ne dañ ko war a sam yonent bi da ko dénkaane muy jikko ju rafet ndax bi muy yabal benn saxaabi yi ku ñuy wax Muaaz ibnu Jabal radiyallahu anhu bi mu koy yabal Yaman ngir mu nekk fa gouverneur waaye tamit nekk fa euh, xaadi ku muy atte muy atte ci lislaam nga xam ne moo fa taxawoon taxawaay politique taxawaay taxawaayu diine ñaar yëpp la boole woon foofu moom Muaas ba mu koy yabal la mu ko dénkoon mooy Muaas xaaliqi naas bi xuluqin xasan dell jikko ak nit ñi ci jikko ju rafet xaaliqi naas bi xuluqin xasan euh, bokk na ci ba tey ay nga ngëneelam am solo yoo xam ne may sa ko jàpp mooy ne jikko ju rafet dafa am solo lool lu tax yént bi ko digle lu tax daf cee taggaate def ko rëyal maanaam suñu borom def ko dénk yonent bi digal ko ko réyal ko xuzil af waa amul bil urf xuzil af wa amul bil urf wa a'rid anil jaahiliin xuzil af wa amul bil urf wa a'rid anil jaahiliin euh, del jéggale del digle lu baax te lu bon ñi nga xam ne dañ laa umpale ba maanaam jéggi ay limite ci yow na leen du mooyu jëlale loola la def ku baax noonu lay def ka nga xam ne la umpale ba jéggi la jéggi la ba ak si foo xam ne war foo àgg ci yow li suñu borom la mooy enrit anil jaahiliin na ngay du mooyu ñooñu loolu jikko ji rafet la loolu loolu yonent bi euh, suñu borom da ko digal waaye tamit digalaale ko bépp jullit jullit bu nekk kon ci ndigal loola bokk mooy war nay jéggale ñi ko tooñ xudil af waaye tamit war nay digle lu baax lu xam di tere lu bon wa amul bil af waaye tamit di jëlale ka jég di jëlale ci tooñ yi nga xam ne ñi nga xam ne ñi la umpale ñi la koy tooñ nga di ko nga di ko nga di ko jéggi di ko dumóoyu euh, mel loolu ba ci jikko yi tet waaye tamit euh, bokk na ci enganelam mooy ne taggul dara ci yonent bi ci te te bari yu bari yu mu ko doon tagge loolu ci jikko jikko jikko ja loolu rek wane ne kon nga ne nga ne loo xam ne jikko am na ko waaye tamit yonent bi tënk gi tënk mission bépp ci tasaare jikko yu baax ngir xam ne lañu comme gëm yàlla nga su àggee bay ba mat ba mat a mat lay lay soppaliku jikko ah waaye tamit jàmm yàlla tamit lépp ay jikko la ndax comportement nit ki ak boromam la waaye comportement nit ki ak ay moromi jaamam la loolu lépp jikko du koy lam moo tax mu ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaq dan maa yónni kese innama bi xasru la mooy amul lenn loolu rek la ma yónni loolu rek ma yónni yónniwuma leneen lu ma euh, mott li jikko yu baax yi bokk na ci ay ngëneelam mooy ne bokk na ci sabab yi nga xam ne mooy xeymam loo ñi bokkul ci lislaam moo leen di xeymam loolu lislaam aka bari ñu bare bari ñoo xam ne dugg ci lislaam ah te ah, jikko ju baax jikko ju rafet yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu dugg ci lislaam kenn ngi nii koo xam ne dafa dugg ci lislaam ma nga naan kiñ naa ci yàlla ne ci kaw suuf bi may ñëw ci yow gisuma fi woon ku ko xam ne baña naa ko ni ma la bañe woon sa xar kanam ni ma ko bañe woon amul benn xar kanam bu ma bañe woon noonu waaye bi ma la jegee ba gis la ba jàkkaarloo ba waxee yow ba jëf jëflante yow amul xarkanam kanam gu ma gën a sopp ci kaw suuf loolu lan la jikko fa bima rahmati min allaahi linta lahu wala kunta faddan xalisal xalbi lan faddu min xawlik keneen la ngi nii ma nga naan giñ naa sama bàyyi sama yaay ne xawma ku mën a jàngale ci li jiitu woon ak ñi ñëwaat ku mën a jàngale te ku mën ku mën ku mel ne yonent bi alayhi salaatu salaam jàngaleem ca comportement ba la ca jëf jëla ca melokaan wala ca jikko jëla njëkk muy nekk ca làmmiñu keneen a ngi nii koo xam ne dafa ñëw ñëw euh, jéggul jéggul jéggulu ko yonent bi jéggal ko ci waaye ba mu delloo ci aw nitam dana ne man day jóge naa ci ka xam ne mooy ki gën ci nit ñi daadi di nitam ñëpp ñu wuy ci ci lislaam dugg ci lislaam kon loolu lépp day wane ne lu bare bare bare dugg nañ ci lislaam te seen jikko ju rafet moo tax ñu dugg ci lislaam boobu ba léegi ñu wax jikko yu rafet waaye day baat boo xam ne dafa làmb lu bare bare bare bare yoo xam ne xëy na ñoo tudd lépp waaye am na ay benn benn yoo xam ne mën nañu tudd yoo xam ne jikko ju jikko yu rafet la yoo xam ne bu ci nekk rek mën na seen mën na seen waxtaan muy lu am solo loo xam julli war ko mën a jikko boobu bokk na ci lawet lawet jikko la yoo xam ne bara ab jullit da ko war di melawoo day wax ne naqar ci jikko seetaan la bokk ab jullit dafa war di lewet waaye tamit li tudde ak dal dal am dal am ndànk loolu jikko jullit la dal mbir bu amee nga tekk dal loolu dañ ko sant ab jullit ab jullit du ëppal du yàkkamti waaye tamit li ñu tuddee xikma muy sases xereñ mbir mu nekk nga seet la ca gën a ëpp njariñ nga ne ca loolu ba tey daa bokk ci ji koy waaye tamit tabe mbokk yi jikkoy jullit la ab jullit day tabe wax na ne nay ku nay day sori yàlla sori nit ñi sori àjjana jege sawara ab jullit day tabe tabe kon daa bokk ci jikkoy jullit ab jullit du nay ab jullit du nay jullit ni muy jeexaate ci jëmmam ci jàmm yàlla mag yépp noonu la jeexaat ci alalam jaahidu bi amwaalikum wa anfusikum alal da si jeexaat moo tax jullit li muy def ci alalam jeexaat la koy jàppe ab jullit du nay tabe daa bokk ci jikkoy jullit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 tolloon rek ci incha allah continuer lenn la ci ay yenn jikko yu ñu jukki ci jikko yi nga xam ne bokk na ci jikko yi tedd yi te ab julli bu nekk war koy ittiwoo di ko jikkowoo xañ na lépp ci ay jikko yu baax mu ne su ko lim waaye bokk na ci gën a ràññiku waxoon nañ ne ab jéggale ab jullit day jéggale loolu aay bi ñu jàng léegi wane na ko xudil af amru la mel alquran karim dañ koo digal muy jéggale ab jullit day jéggale loolu ñëw na ci bari ci alquran yoo xam ne jullit bi dañ koy jégal muy jégg du càggee ne ku la tooñ nga mën a fayu cooba nga fayu waaye day àq day day warteef ci yow en tant que jullit ngay jéggale te fekk sax man ngaa fayu loolu bokk na ci jikko yu tedd yi islaam jàngale waaye tamit ndànk ndànkal mbir mu nekk nga def ca ndànk bul bañ a ëppal bañ yéesal islaam di dina digg doomu la loolu bokk na ci jikko yi euh, islaam du du ëppal du yéesal ab jullit tamit pour mu am jikko ju rafet noonu lay mel waaye tamit nooy nooy yom oyof rëy du jikkoy jullit melokaanu suñu borom la moo ko yelloo ab jullit day nooy muñ muñ tamit jikko yu baax la yoo xam ne ab jullit da koy da koy jikkowoo ndax àdduna suñ borom da ko bind ba noppi bindaale ko ak ay jafe-jafe ak ay nattu ak yu bare bari fokk kon nit ki di muñ dañuy wax ne luwaaye àdduna mooy ay xéewal ak i mbugal loolu ay luwaa yoo xam ne ci lay dox su xéewal amee nga sant su fekkente ne sawaan bi am na nga muñ waaye tamit li ñu tudde dogu azima nit ab jullit day am décision dogu euh, maanaam loo fekkente ne daal mbir dogu nga ca te xam ne lii jàngan nga xam ne lu baax la ña toog bañ a bañ a jëf wala bañ a dox bu mu la tey jëf bu mu la tey dox loolu jikko jullit la fa iza azamta fa tawakkal ala allah loolu saa boo demee ba dogu ci dara na nga sukkandiku ci na nga sukkandiku na nga sukkandiku ci na nga sukkandiku ci rek ci suñu borom euh, te dem waaye bul bul bul bul bokk na ci ak dal ab jullit day amuk dal amuk dal tooy wala lu dikk yóbbaale la loolu baaxul nit ki day am day am day am ak dal lay am la nga nekk nga dal nga am ca nga am ca ak ak sax am cag dal euh, ku ca nekk ku ca nekkul waaye tamit maandu ku nekk euh, lu mbir mu nekk nga jox ko ak xam euh, maanaam bañ a bañ a sukkandu ci leneen loo xam ne lu leen seq la tax nga bañ a maandu seen diggante lool ba tey walaa xaw shana'aanu qawmin alaa allaa ta'dilu nit ki donte am na lu jaar seen diggante ba neexoowu leen tamit bu mu tee nga maandu ci moom nga jox ko ak xam waaye tamit dëgg ab jullit day doon ko dëggu ittaqullah wa kunu maa saadiqin kunu maa saadiqin ba te loolu ni ngeen nekk jamono ju nekk di ànd ak ñi dëgg dëggu tamit jikkalo la ju ju sedd ci lislaam euh, joo xam ne euh, ab jullit da ko war di melowoo lu war ci moom la waaye tamit sellal looy def moo xam mbirum jàmm yàlla la wala sax ministre li ñu jàppe jëfi àdduna la nga def ko nan ko war a defee ànd caag yéene ànd caag yéene li ñu tudde tricher ab jullit du ko def du tricher ci diineem jaamu yàllam waaye tamit du tricher ci liggéeyam lu tax ixlaas baa tax ixlaas mooy loolu ixlaas day làmb jaamu yàlla day làmb jëflante yi ab julli day nekk muxlis kuy sellal mooy koo xam du tricher ab jullit du tricher man xashana fa laysa minna képp kuy tricher boo ci ñun waaye tamit def njëkk ak def njëkk teraanga xañ sax loo xam ne warul la waaye nga coobare woo ko def ko njëkk ak teraanga loolu ba tey ab jullit la ko war a waaye tamit jikko la ju baax matal kóllëre matal kóllëre kóllëre gu gu gu gu gu goo seq ak nit nga matal ko ba tey waa afoo bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula na ngeen matal kóllëre ëllëg suñu borom daf koy laaj moo tax matal kóllëre tamit jikkoy jullit la ab jullit euh, du fecc kóllëre du fecc worma waaye tamit am yërmande ab jullit day am ku am yërmande day am yërmande yërmande ñëpp ñi nga xam ne xañ na yàlla yàlla féete kattan yàlla féete lépp nga am nga am yërëm ci ñoom nit ku nekk ku ne ci àdduna rek am na koo xam ne xañ am na loo ko ëpple loo ko kee nga doxal nga doxale ci yërmaande seen diggante waaye tamit toroxlu ab jullit day toroxlu day wàcce boppam day wax ne ku toroxlu suñu borom bi man tawaadaa rafaahullah ku toroxlu suñ borom moo lay yëkkati boppam waaye tamit dëddu àdduna àdduna ah, maanaam ab jullit du ko du ko bëgg ab jullit du bëgg àdduna da koy dëddu ci àdduna xam ne fu mu ko andi la mu war koo dundal war fee jaamu boroomam war fee dund ab boo bu jeexee mu dellu ci boroomam ci ñi yéen maanaam njëggalam mu tàbbal ko ci aljana loolu la ab jullit loolu war a jàpp du ko jàppe këru dëkkuwaay du ko jàppe këru saxwaay du ko jàppe ajjanaam waaye nii la war a dëkkee moom la yonti boo rek man ak àdduna daal weesuwul lul kuy dox ba sàgg gis ko ak ker mu kii mu noppalu bu noppaloo jógaat dem loo rek la la war a jàppe adduna julli noonu la war a jàppe adduna waaye tamit sawar ab julli du taayal ab julli sawar waaye tamit am looy jombulu am looy jombulu loo xam ne xañ ne sax diine mayoon na la ko waaye yow nga waaye nga ndax diine dafa am yoo xam ne ma couche yëpp lay couche yëpp lay bàyyi xel dafa am ñu ñu am féete ñu am ñu am dogu jéem nee ne kaw am ñu digg doomu am ñu xam ne ci suuf suuf la nekk diina nag day jéem a day diina day day satisfait ñëpp ñëpp leen la am yow da fexe ba bokk ca ñooña ñi nga xam ne euh, yi nga xam ne dañ koo maye sax te xëy na bañ ngaa def mooy gën yow nga jombulu loola loola ba tey day day bokk ci li ñu tudd muruwa moo la sëñ moo la seexul xadim wax ci naajul xadal xaaji ne muruwa mbañum rus moo diina ñoo bokk ndey ak baay boo ko ñàkkee sax xaw tuur ko ñàkk sa diine ab jullit day am lu muy jombul donte ki nga jombul ko yow dagan na lew na waaye yow nga nga nga nga jombulu ko ngir ngir ngir ay mbir ngir ay yëf loolu daa bokk ci jikko jullit waaye njàmbaar ab jullit day ñeme jullit du ragal yaakaar na sun saxaab sun bàyyi ci diine yéen ba ko waxoon seen xarit ba ko waxoon ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine joxe na misaal mu rëy ci njàmbaar ci ndax islam bu agsee fi yaakaar na seenu njàmbaar moo tax loolu ab julit war na ko jàngee ci ñoom ab julit day ñeme waaye tamit wóor ab julit day wóor koo dénk du la wor su ko jikkoo wut safaan balay jikkooy naafeq lay yor yoon di ba ko waxoon ab naafeq ñetti mandarga ko wóoloom war bokkoon na ci kon kuy wor amul amul kóolute kooku du am yorul ak di sàmm mbóot di sàmm secret kon yooyu yëpp yenn ci ay jikko la yoo xam ne jikko nañ ko nga xam ne yu am solo la ci jullit di ko jikko woo te muy loo xam ne bu ko jullit bi jikko woo ak jàmm yàlla la ci moom naam waaye tamit ma ngay tasaarawaale ci comportement am l'islam ci ñeneen ñi nga xam ne bokkuñu si ci yenn société yi nga xam ne bokkuñu ci kii fu mën a dund ci adduna bi te yor jikko yi dana nekk mission dana nekk missionnaire wu l'islam fa mu nekk ngir ay jikkoom ci lay xeemaloo ñam nekkal diineem ji nga xam ne ci la bokk muy l'islam kon jikko jooju nag nan lañ ko mën a fàggoo jar nañu laaj kon nan lan mën a fexee ba am jikko yu tedd yooyu yan méthode lan mën a sukkandikoo ba mën a am jikko yu rafet xëy na bari na trop yoo xam ne nit ki mën na koo def pour mën a am jikko ju rafet lan tey jiital mooy ñaan ñaan mooy nganaay jullit ab jullit daa want suñu borom may ko jikko ndax yonti bi moo ko njëkkee yonti bi alayhi salaatu salaam ginnaaw julli farata gu nekk daana faral di ñaan allahumma hdini shiqaaqi wajal saxiirana yu waqirul kabir wajan waqirul kabir wajal kabirana yu aynu lif saxiir wajal qulubana ala tawaadudi bila tanazuin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaaxudin wala tanaafuri loolu lépp ay jikko yu baax la may ñu jikko yu tàdd may ñu soppante te bañ di noonoo ko ŋaayoo defal ki ki ndaw ci ñoon muy wekk ko féete mag waaye tamit ki féete mag muy yërëm ki féete ndaw suñ xol yi na def muy xol yoo xam ne dañuy soppante jamono ju nekk duñ xëccoo duñ iñaanante nag ñu musal ci xuloo ak di wante ginnaaw ak di bañante ak di fañante yëpp Seexul Xadiim moo koy ñaan ci Matlabu Sifaay kon kon li jiitu ci am jikko ju baax mooy di ko ñaan ni ko yonent bi doon ñaane gaa yu baax di ko ñaan Euh, saali awliya yu saalif ñëpp di ko di ko ñaan waaye tamit bokk na ci eh, lin mën a sawlu tamit ci am jikko ju baax mooy di ci tàggatu di ci tàggatu di ci tàggatu di ko jéem a jëfee di ko jéem a pratiquer ndax ci tàmbali bi dana jafe ndax day jikko aada la bépp aada nag balaa estalewu balaa estalewu nit ki dana sonn lépp luy aada lépp luy aada bala ko nit ki tey jii eh, kii daw la oto daw la oto aadala yoo xam ne nit ki da koy da koy mën avant mu koy man amoon na coono waaye mujj da koy def sax du ko yëg lam war a dugal la war a génn yëpp mu koy def sax du ko yëg lu tax da mujj soppali ko aada kon bépp aada balaa installé wu nit ki day sonn moo tax kon fokk ñu tàggatu ci jikko ju rafet tàmbali bi dana metti waaye ñu not suñu bakkan ah ndax bakkan nag dañ koo su ko Seexul Xadiim waxee dañ koo bind ci bañ ak topp yàlla bañ lu baax kon ah, nañ not not jéem a suñu bakkan xam-xam ki ko am dafa xamlu mooy dafa dafa dafa dafa dafa dafa xamlu dafa tàggat boppam ci lu dafa da caa lawet lewet ko dem ba lewet am na jamono yox xam ne xañ ne dafa not bakkanam jéem a lewet lewet lu mujj mujj doon nit ku lewet def nañ ko ba tàyyi lu mën a mu muñ ko lewet noonu waaye tamit kam muñ dafa muñ muñ lu ba tàyyi ba suñu borom defal ko mu doom am ji koy muñ nga xam ne lu ma lu mën a ñëwati rek dana ko mën a dékku ngir tàggat na boppam ba loolu nekk aada ci moom mujj nekk soppali ko aada ci moom waaye tamit jombulu jombulu euh, gis loo bëgg lool sa bakkan bëgg ko lool nga mën caa am lool waaye nga am loo bàyyi xel tax nga jombulu loolu tamit ak tàggatu la kii def loolu day dem mujj day nit ku jom day doon nit ku jombulu saxaaba yi loolu suñu borom taggee yaxsibuhumul jaahilu agniya mina taafuf ki leen xamul sax da yaakaar ne danoo omal lu tax ndax danoo jombulu bëgg nañ ko aajowoo nañ ko soxla nañ ko waaye ñu jomblu ba ku leen gisee na yaakaar ne bëgguñu ko soxla ko ko jullit tamit day jomblu bu ko defee day mujj nekk ay fa day mujj nekk jikkoom melokaanam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne kuy jomblu suñu borom dana mujj defal ko mu muy muy ku jomblu kuy sàkku kuy kuy sàkkoo doylu suñu borom dana mujj soppali ko muy doon ku doylu mu doon nit ku doylu waaye tamit kuy muñ muñ lu fu mu toll suñu borom dangay dem ba xéewale ko mu doon nit ku man yastaafif yuafifullah wa man wa man yastaxni yuxnihillah wa man yatasabar yusbiruhullah loolu kon loolu lépp kon day war bokk na ci tamit li mën a tàggatoo ci mën a am jikko yu tàdd wax foofu mooy nit ki di dund ci milieu bu baax ndax dañuy wax nit ki li ëpp ci li muy mel mi ngi koy jëlee ci fi muy dund maanaam nit ki milieu parce que moo koy moo koy produire lan wax ki ki nekk ci dund milieu bu baax na ci ca dund boo xam ne jikko yu baax moo fay nekk loolu loolu loolu mooy na ca moom jikko yu baax yooyu aada yooyu mu tàmm gis ak comportement yoo mu gis mu nekkal loolu da koy toppandoo di ko roy ba mujj de mujj nekk moom jikkoom kon fexe bay dund ci milieu bu baax am ñoo nekkal ñu baax nit ñu baax ngay ak ñoom loolu mën naa tax ba nga am jikko yu baax ndax jikko yu baax day wàllante maanaam lépp luy aada rek ñaare euh, ñun dañ koy wàllanti te jikko jikko baax aada la jikko ju baax dañ koy wàllanti moo tax kon boo nekk koo xayam jikkoom rek na ngay na ngay toog a moom su ko defee dana la wàll maanaam yonent bi daa wax ne euh, kuy toog a waaju baax day mel ne ku toog ku jaay ku jaay laj ko lañ benn nga jënd ci moom am laj ko walla wala euh, jëndoo ci moom lu mbon mbon da da da nga fa da nga fa noyyi xet gu neex kon lu kon boo boo nekk boo nekk waa ju baax bu da nga jël ci moom eh, ay jikko ngir ne eh, même boo ko boo ko rëyut tamit moom dana la wàll ci jikko yu baax yooyu comme ki jaay ak laaj ko lañ donte jëndoo ci moom sax xeetu laaj ko lañ da nga ko anamtiku ko kilool moo tax kon eh, noonu la ko moo tax jëli si saalix ka xaamilil misk benn nga jënd ci moom aw tajid min raaxaan yonent bi daal yonent bi wax na ne nit ki tamit ah, mi ngi ci diinay mbokkam ni mbokkam mel rek la lay mel al mar'u ala diini xalili kon koo ko bëggu mel na moom rek bul xar bul xaritoog moom boo xaritoog moom rek da nga jël da nga kon daal bokk na ci lin mën a ah, amee jikko ju rafet mooy di dund ci milieu bu baax dund ak borom jikko yu baax su ko defee ñu wàll la seen jikko yu baax yooyu moo tax ah, yonent bi wax ne fal yansur ahadukum man yu xaalil ku nekk del xool ki nga xaritool waaw wax ci masal wu juraan wa xaalilan man chita tax du shaklahu mën ngaa xaritool ku neex nag waaye da nga xam ne nam mel noonu ngay mel kon ba tey ci ci naajul xadal xaaj suñu borom nee na seexul xadim mi ngi nett lii ne bu fekkente na nga gis nit ay jikkoom yéem la nekk ko rek nekkal ko ko rek su ko defee jikko yi nga doon yëm ci moom day daal nekk ci yow isa ajabat ka xisaalu mriin fakun hu yakun min ka maa yox ko kon euh, ñu ngi xamal ne waxtu yu kii loolu ma jeex na ñu ngi jéggulu baax mbokk yi di euh, jéggulu baax a baax a baax ci rëcc-rëcc yi di ñaan euh, li mu ci dégg lu jub la yàlla suñu borom may ak dégg topp bu dee fii yàlla suñu ñaan suñu borom nangul jàmm yàlla yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement en ce qui concerne les finitions de verre, polissage biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye et Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal nañ a xam